di dem ci quatorze régions yëpp mais ku ne xam na ni parfois temps bi du ko maye. waaye nag yaakaar naa ne daaw ñëwoon nañ fii fekkoon fi ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Guèye ak Amadou Kati Diop waxtaan ak ñoom ci équipe bi nga xamante ne tey moom mooy représenté dakaar daaw nag teeloon nañoo xam cinq lutteurs yi nga xamante ne tey ñoom la ñuy copté pour ñu teewal leen waaye nag fekk nañ ñu ki nga xamante ne moom mooy directeur technique bi di Père Kayra suñu Père Kayra tey moom lañ dénk li nga xamante ne moom mooy écurie dakaar bi ak ki nga xamante ne moom mooy Amadou Kati Diop mu ñëw pour épauler ko ñu war a waxtaan ak moom ci loolu waaye def entretien bu xaw a yaatu tuuti ndax war nañu waxtaan tamit ci combat bi nga xamante ne tey doomam seqoon na ko ak beneen doomam muy Mbagnick Kaïré ak Mathieu Pereira ku ne xam ne tamit euh, président Macky Sall wax na ni day recevoir le monde de la lutte lundi incha allahu rabbi loolu fas nañ ci yéene waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci combat bi taxaw bërki démb dox ci diggante Bébé bàyyi Baye Mandione Reug Reug ak ki nga xamante ne moom mooy Bombardier père ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare la nga nuyu ak mbokk waaw euh, maaleykum salaam moom fils euh, Lamine ginnaaw bi ñu sante yàlla rek di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu internetu Lutte TV yëpp di nuyu ñu ne ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew Euh, di am rek saa su ne kontante di di séq ngeen ay jotaayu waxtaanu làmb ak li ko wër ba tax na daal fii ñu toog ni tey comme ni nga ko waxee rek euh, ñu am lu ma lu ñu ma dénk muy le directeur technique de la région de Dakar donc ma fekk fi suma mag suma xarit Amadou Kati Diop doonoon suma entraîneur à l'époque bi ma nekkee écurie Fass kon bu fi tafaa jógee ñuy ñëw fi day mel ni tafaa ngi fi mhm. man it ma am yàlla may ma xelu vraiment seeti ko waxtaan ak moom. Mhm. ne ko na ñëw jàppale ma ci liggéey bi. Mhm. mu rafetlu ko lool moom it moom Moustapha. te mu ngi ciy ànd ak man di ci def nag liggéey bu ci ami mhm. kon maanaam da maanaam demul. mu ngi fi. maa ngi fi de ren sax lañ gën a ëpp doole. parce que trois expérience yu am yu am solo <laughs> moo yor équipe bi ren. muy Amadou Kati Diop. Boy Kayre Moustapha Gueye. macha allah. ndax condition yi tey bala ñu ma balaa ma ñëw ci condition yi sax naka lañ la euh, coopté pour def la directeur technique ak kan moo la contacté. waaw ni ñu ma coopté euh, c'est le président du CNG moom moo ma woo. Mm-hmm. Euh, def ak man waxtaan ne ma li sey des nag ñaambe Diop moo koy eggali mm-hmm. donc junj ma nag mm-hmm. ñaambe Diop daal di eggali liggéey bi comme c'est le directeur administratif comme quoi ne daal ren dañoo bëgg équipe bu Dakar bi nga doon le directeur technique. ah ma ne leen loolu de vraiment kóolute la ak confiance euh, je pense que ne boo leen defee loolu ah da ngeen ma delloo li ma moom ci làmb rek parce que avant Moustapha am na ku fi nekkoon mhm. Ibrahima Mbaye jaar na fi Omès Diagne jaar na fi ak ñeneen ak ñeneen jaar na fi kon tey jii boo leen dëggee ba seen xel dem ci man ngeen woo ma man dama koy rafetlu mhm. waaye nag yàlla dafa ma may xel damay xalaat ma ne ki fi nekkoon daaw defoon na ay résultat kon j'ai besoin son expérience daal si waxtaan ak moom comme li ma wax tout à l'heure rek vraiment mu accepté ma lépp mbir mi daal noonu la fa demee euh, Hadj Lamine. Mm-hmm. ok loolu am na solo léegi gannaaw ba nga leen nangulee nekk directeur technique bu bu Dakar bi ku ne euh, drapeau chef de l'État ni préparation ku ni préparation tamit ni koom ndax tey conditions yi day daje na pour ngeen am une meilleure préparation. waaw li nga xam ne nag moom lañ amagum dëpp maanaam ñu ngi siy liggéey. mais li war a daje yëpp des na euh, pour dire vrai nii may wax ak yow moom ñu ngi en regroupement mais ñu jot a ñëw daal euh, mënuñu leen bañ a tudd pour le moment muy Kandji production vraiment ñëw na dugal na loxoom Makan Mbeng doomu Gaston Mbeng dugal na loxoom euh, le maire Barthélemy Diaz vraiment moom it dugal na loxoom. moo ñu jox ay équipement mm-hmm. vraiment moo war moo nar a habillé équipe ndakaaru bi mm-hmm. waaw vraiment yëkkati benn enveloppe un million jox ñu mm-hmm. waaw bëri nag autorité yu ñu bëri yu ñu saisir mais la say Abdoulaye waxoon waxoon rek laay wax ndakaaru ñu doon ñu am problème mu ay regroupement wala yooyu waaw dem nañ nag si gouverneur jox nañ ko ay sociétés yoo xam ne moom je pense que mi ngi def ci liggéeyam mais lu si mën a am daal mooy que ak maire yu maire yi ne fii yëpp jox nañ leen euh, dem nañ fa def nañ nag li ñu war a def yëpp def nañ ko li ñu war def yëpp def nañ ko dem nañ si nit ñi parce que dafa laaj ay moyens mm-hmm. surtout équipe bi nga xam ne daaw moom moo ko jëloon mm-hmm. li ñuy xaar du lu yomb non du lu yomb parce que dañoo gañe daaw ren dañu war a bugg a gañewaat mais nii may waxee yow daal nii dañuy taaba taaba mais pour le moment moom des na mm-hmm. mais liñ jot a duggagum muy la maire Barthélémy mi ak euh, Kandji ak euh, Makan vraiment nu ngi ciy taaba taaba donc mooy moom bu ñu waxantee dëgg rek des na lu bëree bëri. Mhm. léegi lan mooy taxawaayu CNG ci loolu ndax subvention am na boo xamante ne tey day jóge ci CNG bi dem ci euh, équipe quatorze équipe bi nga xamante ne tey ñoom ñëw war a seq jongante bi. waaw bon d'après li ma forcé yooyu nag à chaque drapeau du chef de l'État euh, CNG quatorze régions yëpp daf leen di subventionné waaw mhm. ah, quatorze régions yëpp ñu nga xam ne ñu nekk en compétition daf leen subventionné. mais subvention boobu doyul. Mm-hmm. waaw subvention bi CNG di kii loolu doyul boo gisee ñuy dem si autorité di leen di dem si ñoom. Mm-hmm. pour ñu soutenir nuñ parce que loolu moo tax. Mm-hmm. waaw parce que du lu drapeau chef du lu ndaw. peut-être nit ñi dañ ko xaw a kii mais man bi ma duggee ba xool nii nii. Mm. lu non lu rëy rëy la te pour nga dem ba jël ba ba décrocher ko ah il il faut des moyens. donc moyens yak ñu ngi koy xaar si ñi nga xam ne bëgg ma ah, fi mu nekk nii ñun euh, mënuñu mënaguñ leen tudd. Uh-huh. te ñëwaguñu mais comme ni ma tudde ñii ëllëg bu ñu ñëwee ñoom dañ leen di tudd comme defal nañu teraanga remercier leen CNG bi na dee lettre de remerciement daal ñu laal leen ko delloo mais ni may waxee ak yow ñoom ñett ñooñu rek lañ gisagum pour dire vrai kon daal mën nañ jàpp ni li nga xamante ne tey équipe bu Dakar bi soxla soxla nañ ko ci moyen amaguñ ko kon nag yaakaar naa ne ñi nga xamante ne ñoom contacté nañ leen war nañ ci mën a jàpp seen kéemtulaay kattan nit nag comme ni ma koy waxee chaque jour rek kenn du ko mele ci xam-xamam war nga koy mere ci alalam waaye nag ne nañ di joxe di metti metti laaju ko raw foofu tey ñoom laaju ñu pour def seen poos laaju ñu pour jox seen njaboot dañu laaj pour affaire du jongante la affaire de raison la don donte Sénégal yëpp la ñu tuddee ko ki nga xamante ne moom mooy chef de l'état mu yàgg am depuis des années kon yaakaar naa ne tey ñi nga xamante ni équipe bi du ma wax sax perkare équipe bi contacté nañ leen pour ñu soutenir leen yaakaar naa ni nañ ci xel bu baax a baax a baax dama des ci loolu euh, yan mbër ngeen dajaleegoon fii ñaata mbër ngeen fi dajale pour def seen sélection. sélection bi sélection bi waaw xam nga pour wane na rek gis nga actuellement nous sommes en regroupement te du doon ñuy compétir il faut ñu wutal leen ay sparring partenaires. Mm-hmm, mm-hmm. donc sparring sparring partenaires yooyu gis nga dafa laaj ay moyens parce que da nga leen di loger di leen nuurul añ réer ndékki pour ay médecins ñu leen di def ay massage ak le staff technique donc ça demande des mais donc on a fait def nañ sélection bi dëgg-dëgg am nañ yaakaar ci ñi nga xam ne sélectionné leen pour bu ñu demee daal ñaan yàlla yàlla jox ñu ndam bi incha allah sélection ba pare wala. waaw def nañ sélection yu pare. Euh, kan ko. Euh, tey actuellement boo xoolee plus de cent vingt kilos yi ëbbali lañ jël euh, waaw Ibou Ndiaye ëbbali. waaw cent kilos bi selemele. Mhm. jël nañu waaw ki seeni bar seeni bu barñi mhm. ak ak kii nu mu tudd soo Mali. Mm-hmm. am na ku ñu fi wax soo Mali. Mm-hmm. moom mooy mooy 66 kilo bi quoi. Mm-hmm. waaw waaw noonu la quoi. macha allah loolu am na solo mu war a nekk 12 13 14 mai fële nga xamante ni moom moo di Saint-Louis drapeau chef de l' état léegi nag euh, dañuy des ci loolu noonu waxu chef de l' état ndax président Macky Sall dafa war a dalal le monde de euh, ban gis-gis nga am ci euh, dalal gi nga xamante ni dalal na leen. waaw euh, gis-gis bi ma ci am Lamine mooy que rek euh, euh, dafa di yoon bi ci njëkk parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu te secteur bu ci nekk tey am na loo xam ne manqué na leen tey kii occasion boo xam ne la incha allahu rabi bu ñu jàkkaarloog moom dinañ wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la mbër am jafe-jafe bi nga xam ne moom la promoteur yi am jafe ji jafe bi nga xam ne moom la amateur yi am maanaam la monde de la lutte moom la am. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne làmb am na ay jafe-jafe. te bu ñu woowee aussi dañ siy kontaan pour mu pour mu xam lan mooy jafe-jafe làmb parce que xam nga euh, des fois sax mun nay toog di dégg dégg naa dégg naa mais bu toogee acteuru làmb yëpp toog euh, di wax moom muy dégg je pense que su boobaa solution yu bari mun naa am mais moom bu xamul yëgul wala ña ko war a wax dëgg-dëgg waxuñu ko lu bari mun na ko ëmp mais suñu dajee ak moom incha allah lépp lu lëndëmoon si ay noppam dina ko dina ko leer. parce que soxla nañu dimbal boo xoolee arène bi tabax dal nañu ko kontaan nañ si mais ay mesures d'accompagnement amu ci promoteurs yi dañu sonn mhm. y a plus les xam nga mbër yi bëri na ay cas yoo xam ne tey tiaa yi ay anciens ñun daal la ñu war a wax yëpp je pense que ne ñu ngi koy dëxëñ teg ko buñ jàkkaarloo moom nit ñëpp la monde entier nañ xam ne dëgg-dëgg nag mbër yi ak la monde de la lutte lii ñu wax président lu jaadu la te lu yoon la te lu xel di mën a nangu la. est-ce que moment bi moom moom mooy moment bi mu leen waroon a recevoir ko xamante tey nekk na ci nguur pendant onze ans musul recevoir le monde de la lutte ñu des tey ñu dem ba ay élection des neuf mois ak fi réew toll ndax loolu tey xel mu ni dafay recevoir monde de la lutte ci moment bii nii. waaw xam nga siti situ euh, actuellement situation bi ñu nekk nii trop trop trop trop lépp lu président def rek dañ naan c'est politique wala day xëcc ci booram mais Lamine euh, nit ñi nag ku si nekk ak sa xalaat ku nekk ak sa sa gis-gis ak ku nekk ni ngay ni ngay xalaate ak ni ngay waxee mais lu ci waaye wax rek ñun man de en tant que tel ma ko koy nangul buñ ne euh, dañu bàyyi ba élection jóge mu recevoir nañu ñoom mën nañu wax dëgg ñu ne dañu ne peut dafa jot. mu xam mais est-ce que jotul bu yàgg père. waaw mën na jot bu yàgg bu yàggal bu bu yàgg parce que ki demoon ki xalaat tey jii ba defar leen lii après lii rek waroon nañu mën a recevoir kii kañ lañ ko inauguré jëmata si war na def euh, trois ans quatre ans te yàgg nañ yàgg nañu aussi bëgg mébét pour mu recevoir ñu. mais est-ce que daan na euh, maanaam euh, lettre yooyu ñu daan bind est que daan na ko jot aussi Lamine. parce que mais même su ko jotul tamit. nit ñi moom mooy ki nga xamante ni information yi mi am. kenn bu ko am ci réew mi. est-ce que est-ce que est-ce que jàppoo ni daal. ah moom moom situation moo laaj mu recevoir. il est il est il est il mhm. du pays. damay nangu kàddu yi nga yëkkati wax ko. mais la taxoon xëy na recevoir ñu recevoir ñu peut-être man da xaw ma ko dëgg-dëgg laay wax. parce que fi situ fi situation bi toll ci réew mi loo fi wax naka lu nekkul loo xam ne gëm nga ko wala wa ngay wax la lale soo baax it nit ñi dañuy xam ne li ngay wax tegoo ko ci yoon. mais en tout cas daal euh, euh, li mu ñu war a recevoir nii gaa waroon na nekk bu yàgg a yàgg. pour diir vrai waroon na nekk lu yàgg a yàgg yàgg yàgg. parce que ñun dañoo bokk ci li nga xam ne ci réew mi loo xam ne dañuy dañuy dañuy doxal mi. à part équipe nationale de football. làmb rek ngay mooy tëgg ñu naan la plus de cinq cent plus de mille policiers. plus de huit cent policiers donc loolu si làmb rek la am. bu bu Sénégal football amul benn sport bu koy def ci Sénégal. kon ñooñu si si réew mi am nañ lu ñuy représenté ci réew mi. am nañ poids ci réew mi. <clears throat> mais nag attention daan na recevoir aussi ay VIP. xëy na mosul recevoir le monde de la lutte. mais daan nga toog ba si yàgg dégg na euh, recevoir na Yékini recevoir na Tyson recevoir na Modou recevoir na Balla Gaye ñoo ñëpp ku si nekk recevoir na mais lii nag moom ñu ngi doo wax guleet du dëgg waaw. <coughs> da ngaa tooy entraînement yi xam nga bi saison bi ubbee ba léegi écrit simba jën ma fa nekk donc maa fa nekk xam-xam beeg donc yooyu waa énergie beeg yooyu donc feebar bi nii nag dangay ngay tooy c'est normal. Mm-hmm. moo war a doon seen taxawaay yéen bu ngeen demee foofu. non xam na ay kilifa lañu dafa am ñoo loo xam ne léegi si réew mi ñun dootuñu ay n'importe qui dans la euh, dans ce pays te day ñaaw ñu génne comme ni nga waxee di tajante ay bopp yooyu c'est des c'est des c'est des esprits dépassés. en plus loolu yëpp lu ko war a paas bàyyi war paas bee koy andi. <coughs> Ah, yooyu ah, ah paas non non non je pense que ne euh, je pense que ne affaire ay paas ak yooyu. war nañ dépasser yooyu quand même. parce que bi la ñuy yóbbu foofu moo moo ëpp doole ay paas. parce que ñun ay doléance ay doléance yoo xam ne tey ñun dañ ko dañ ko war a régler yooyu moo ñu fa yóbbu. moo leen fa war a moo leen fa war a yóbbu. bi ñu ne mais mutuelle bi nga xam ne ñaata at ñu ngi koy jooy. paay mbër amul retraite mbër amoo retraite amoo dara ku mbër yu bëree ngi seen kër yi tëdd feebar amul kenn faju leen mais tey bi ñu amee benn mutuelle boo xam ne c'est pour le monde de la lutte ku dem fa fajar euh, ku feebar faju ji. mais loolu yooyu mooy base yi fexe ñu accompagner promoteurs yi fexe sponsors yu mag yi ñëwaat làmb dox. léegi nag fi may jeexale ak yow mooy sa sa doom di Mbagnick bëri na samedi passé digganteem ak match mais avant muy bëre tàllal naa la micro tàllal Diène Kaïré micro gis confiance bi mu doon dégager énergie bi mu doon dégager ci zéro noonu ba ma gis ni excès de confiance am na loolu feeñ ni ci biir géew bi avant muy bëre dàqante bi. perte énergie bu bari mu perte combat bi euh, yan erreur technique la def ci biir combat bi ak énergie yi nga xamante ne doon na ko dépensé ndax jàppoon ne tey loolu bokk na ci lu xañ ko. waaw xam nga euh, euh, écurie Soumbédioune ay mag a ko yor chaque com chaque après combat dañuy def réunion de critique donc après le combat ñun ñëpp dañoo daje écurie ba def réunion de critique li ko ñëpp balaa mooy excès de confiance bu metti Mbagnick a été trop trop trop trop trop confiant ci combat bi confiance nag d'accord xam nañ ko ci mbër bëgg nañ ko ci mbër nga am confiance entraîné parce que xale la dañ dafa entraîné nag normalement mais des fois làmb ñaan a koy bëri man dama jàpp ne excès de confiance moo ko daan ak xalaatul woon ne eh, Mathia mun na ko daan te loolu njuumte la njuumte bu rëy la ci moom parce que euh, ñun stratégie bi ñu tegoon euh, xamoon nañ ne Mathia day ñëw donc travailloon nañ ko ba nga xam ne euh, waral woon egg foofu mais comme que dafa dominer combat bi Mathia di bëriwul bëri mu dem ba fàtte ne mu ngi dugg ci garde waa ji moo tax Mathia song ko daal di ko jàpp daal di ko bett donc dina ci tirer ay xam ne làmb ñaar a koy def soo bëreeg sa moroom sa nawle ngeen dër ba ba temps jeex ngeen ñëwaat am na yoo xam ne defu ko yow da war a taxaw. Hmm. waaw donc nag dafa defu lool âge boobu dafa jàppoon ne ba combat fu muy ba fu muy mujj ba fu muy ñibbe moom mooy daan. Hmm. donc affaire xale mbëru mu ndaw affaire xale. Hmm, excès de confiance waaw moo ko gagné. loolu mooy critique bi mooy bi ne la prochaine fois bu loolu amati. mbër tànk daanoo ko mënoo ko. ok loolu am na solo euh, le lendemain euh, Lac Rose ak Quench bëre nañ fi. boobu tamit ban ko ban jàngat nga ci def combat ba. waaw jàngat bi ma ci defoon rek avant le combat je pense que ne bu dul yow am na ñu ma tàllal micro. Mm. may leen bu fekkee ne la mu indi woon ci Moussa Ndoye maanaam indi na lu raw loolu kon dinañ gis combat bu méttee méttee mm-hmm. mais bu bu indee lu yées loolu wala mu tolloo du daan Quench mm-hmm. parce que euh, Quench mbër mu naqaree daan la mm-hmm. parce que xale la ndaw la am na doole te am na fu mu teg bëtam te li ñëpp li ñëpp gis mooy que euh, fan la préparé wu Lac Rose fan la préparé ak naka lañ ko préparé parce que euh, deux fois dix minutes ci làmb léegi mbër war sonn ba ñëpp xam ne da nga sonn daanu te loolu moo am ci làmb ji pour dire vrai dafa bëri dem ba ci biir jeex xale bi daal di ko daan kon na xoolaat ay ni muy préparé ak ñan ñoo ko préparé ndax bi pas face la préparé wu ndax katee ko préparé ndax ndax ndax mais la mu indi woon si Moussa Ndoye bii moo gën a yées te je pense que ne nag am am na cër bu rëy rëy ci làmb ji bu fekkee ne bëgg na jëlaat place am ci làmb ji non il faut mu dem xoolaat ginnaawam reculer pour mun a taxawaat xoolaat kanam defaraat ko dem ca kanam. Hmm. Hmm. ku si fu mu jëm. waaw keneen mi ngi si euh, mi ngi si chemin bu baax parce que dafa génn ci double moteur si génn la génn machine ñëw si double moteur gagné ko par point tey mu daan Lac Rose kon fi mu euh, trajectoire bi mu jël baax na bu ko tegul ah fa gars yi dem fa la jëm dafa la teg bëtam parce que ndaw la am na doole mën na bëre te nag neexul daan pour dire vrai. Bombardier rek rek taxaw na. Euh, comme ni ko Bombardier doon ñaane yàlla dogal na ko bëreeg quatre génération bëreeg ay magam bëreeg ay moromam bëreeg ay rakkam bëreeg ay ay jarbaatam loolu ndax yombul. noo yombul yombul mais liy def loolu rek mooy euh, hygiène de vie moo koy def parce que loolu mu def man def naa ko man booy xool bi may bëre mujjee bëre xale yooyu parce que ñi samay doom lañu donc lii indi loolu mooy hygiène de vie gëmoon sa bopp di entraîner normal ba ñu dugg ci yenn yi. mbër moo ci gis entraîné woo teg ko ci yoon def leneen sa fin de carrière la lépp di feeñ la lu leer laa lay wax maanaam lépp rek na naturel su naturel rek carrière bi day gudd du am benn problème mais bu naturel wul nga boole li ci bokkul carrière bi du yàgg. lan mooy ay sens rek ci combat non la fa war a am yëpp moo ko war a def hmm? la fa war a am yëpp moo ko war a def parce que dafa am si lu mu jógee barke démb kon pour mu ñëwaat ay supporteram xam ne kii lee passé juumte la woon dafa war a ñëw làmba la fa xew yëpp moo fa maanaam moo war a ëpp doole moo war a bëre moo war a xeex moo war a jàpp moo war a daan Bombardier loolu su amee du la bett. non du ma bett. parce que parce que. waaw parce mooy li ma wax presque doomam la euh, papa baayam lay bëreel Bombardier mën na jël rek rek longévité carrière Bombardier moo tax rek am chance fekkee carrière mais Junior warul woon warul bu fekkoon ne âge normal ba la kon heure bii mhm. moo tax mu am chance di kon pression bi bi ci ci ci Reug Reug la ci Reug Reug Bombardier mu daan mu daanak ak mu moo mais il n'a rien à perdre sur ce combat. par la grande porte na honneur parce que moom daf ma daf a wax ni moom jëlul combat pour xaalis day jël combat pour honneur. non non jafe na jafe na mbër di bàyyi yóbbaale victoire ah jafe na ci làmb de. na comme kan. waaw. waaw waaw waaw comme Baboy. comme Baboy waaw te sax dañoo dañoo coupé court ne 45 ans waaye bu continué woon. la dal Tyson dal Yékini mm. dal Moustapha Gueye mm. daal dal Boy Kayre mm. dal dal dal dal dal dal la dëgër non <laughs> moo lay dal parce que xale non moo lay dal parce que xale yi dañu ñoo fekk la fa ëpp la doole ëpp la sañ-sañ ëpp la doole dàq la bëri ëpp la ay réflexe am na âge boo xam ne boo ci duggee réflexe dootoo ko am waaw dootul dootul la jalal nga yeew 5 heures du matin di kër déedéet da ngay da lijjanti rek hmm. waaw loolu la quoi. kon ak lu mën a xew rek fa war a daan. non ak non dafa war a daan ak lu mën a xew war a daan Bombardier. su ko Bombardier daanee. bu ko Bombardier daanee ah <laughs> euh, dina metti ci moom waaw bu ko Bombardier daal surtout ci défaite bi mu jógee nii. si hmm. défaite bi mu jógee nii mais nag euh, genre Reug Reug ak fi mu bugg fu mu bugg a egg ci làmb gëw mu teg la ñaari défaite. surtout kon yow gëmoo Bombardier daan ko daan yow. non non aw ma aw ma gisuma Bombardier fu mu mën a daane rek rek. waaw Sa Thiès waaye nag na def ndànk. waaye nag na def ndànk Sa Thiès am na ñu ne moom mooy le grand perdant parce que nee nañ euh, moom waroon a jiitu ci Bombardier ndax yow gëm nga lool. waaw xam nga nag àdduna lépp rek wërsëg la daal man noonu laa koy jugé lépp wërsëg la rek ak est-ce que amoon na promoteur yu ko doon dox aussi est-ce que amoon na promoteur yu doon dox euh, Sa Thiès ak Bombardier. peut-être bi mu baree taxaw yàgg na ba mu jógee ci rëg-rëg rek ak ak coowu làmb rek dafa waroon taxaw parce que daf ko bëggoon moom. Mhm. mais sa jamono bëggoon na bëggoon na nu mu tudd. Mhm. bëggoon na amoon na amoon na amoon na promoteur bu ko tëgg quoi xam nga aussi làmb des fois combat dinañ ko bëgg mais. promoteur mooy waaw mooy taxawal làmb très bien. heureusement nag c'est dommage que Jamaïcain ñëw décorer ko ah moom mu toog xaar wala mu xool leneen rek. Mhm. Euh, tamit taxawal na beneen combat sa poulain ak Baye Mandione waaw waaw mu doon combat bu neex lay doon nag waaw presque rek genre baay ak doom la rek mais li ma si njëkk def maa ngi remercier Baye Mandione dama koy remercier baax a baax parce que gis nga noonu ñuy def noonu di may xale yi chance ci làmb dafa baax mooy tax xale yi percé parce que ñoom seen xale yi seen tour la ñuy bëri maa bëre baay ma Mandione kooku kooku ndam la si bébé Diène jóge si gaaku 2 dem dal ci Baye Mandione ma Baye Mandione man en tant que tel man Kairé maa lay sant di la gërëm ci grandeur bi nga am. vraiment ah mais yaa ngi koy sant père mais Baye Mandione jëlu leen pour daanu de. waaw non <laughs> dama koy njëkk a sant foofu ba pare ëlbatiku ne ko nag combat yi euh, combat revanche la. combat revanche la parce que man aw ma chance daan Baye ma kon combat bi sa combat la. waaw déggoo la ma la wax <laughs> dama koy gërëm ci loolu ba pare nag ne ko nag ah sama revanche revanche lañu jël si. waaw te nag revanche la jël si. te dañuy xuus dañuy bu tëjee porte ñu ñu tëb jéggi. te lu mu lëndëm dañuy xuus jàll wax laa la waaw waaw. xool ko nga ne ko lu mu lëndëm lëndëm bàyyi. bàyyi lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus jàll te boo tëjee bunt yi ñu yéeg jéggi. waaw Mbaye Dieye Faye ko yoon xamu Youssou Ndour kontaan nañ ci moom bu baax a baax di amaat mbégte moom ndax bu ñu toogee ak moom rek maanaam dañuy suñu bopp day ubbeeku. dañuy xam liñ koy laaj du ci ñun ci moom la ndax dafay wax te li mu wax yëpp daf koy argumenté ñu ngi kontaan ci moom di ko ñaanal fan wu gudd fan wi gën a gudd yàlla defal ko wér defal ko sutura bàyyi kook njaboot gi ba ñu ba ñu koy weer di ko weer comme ni ñu koy waxee rek defal ko teraanga bu nekk ci àdduna yomb na yàlla yàlla na ko yàlla defal ko kontaan nañ ci baax a baax a père lan ngay tàggatoo. Euh, li may tàggatoo euh, mooy image bi léegi rek peut-être jëloo ko muy Mathieu Préla ah, waaw ndeysaan euh, xam nga lii mooy sport seen ma ñëw mu laxasuma Euh, te euh, per lii la man sport nii laa ko xamee bu jeexee rek parce que jeexee bi ñi ñëpp samay doom la ñu. làmb ji acteur ñëpp samay njaboot la ñu. moo tax man su ma duggee ci làmb nay rafet rek. waaw maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax. di ko ñaanal aussi ndam bi yàlla na ko jig xale la am na yar keroog respect bi nii si biir géew bi. li ma ko njëkk a wane. biñ duggee ci géew bi. dafa ñëw ba si man na ah, Pierre daal li ma nuyu jox ma li ma moom. waaw vraiment loolu mooy sport. du jaxase day bool te ni mu dajeeg man nii. su da dajeeg ma noonu lay demee. maa ngi koy félicité bu baax a baax di nuyu nag écrit walo gi yëpp di nuyu tëdd filé woon xam nga ñoom Mohamed Ali la dëggeer vraiment liiru jaan ñoom ñëpp daal maa ngi leen nuyu di sant ñëpp daal vraiment di ñaan Sénégal yal na fi jàmm am audience bee ñuy dem nag yal nañ fa jëlee ndam ci le monde de la yàlla bu fa coow am yàlla bu fa xuloo am yàlla nañu yàlla na Sénégalais yi ñu ne ci réew mi ak bitim comprendre ne audience boo xam ne na ah njiitu réew mi moo ñu woo laa laaj ñu suñu ay délances lu ñu metteeg lu ñu naqari ñu wax ko ko mu saafara ko loolu mooy audience de mais leen du leneen